alhamdulillah alhamdulillah ku bëgg a góob da ngay ji da ngay bay bàyyi ne ku bëgg góob da ngay ji da bay ku bayut xam ngeen ne ku bayut su góob jotee doo góob dara de kuy góob itam la nga jiwoon rek ngay góob kuy góob it xam nga ne la nga jiwoon ngay góob ndax moom nga foccile bu leen def seen bopp xaleel bu leen def seen boppi xale. bu leen def seen boppi dof yi ñuy nax. bu leen def seen boppit dof boo xam ne ku jot tourné nax. la ilaha illallah معكم لا إله إلا الله ماما على سالم يا بركة يا بركة سنة على ماسو يا بركة يا بركة سنة على بابا يا بركة يا بركة سنة على بابا يا بركة يا بركة ويس way sunu góor baraka ya baraka way sunu góor baraka ya baraka Sheikh Ibrahim dundal weeral yow amin ci barke Cheikh Ibrahima dundal weeral amin. amiin Ibrahim Ibrahima dundal weeral amin. amiin yaay sunu bi dundal weeral yow dundal weeral yow amin yaay soppe mag ñi dundal weeral yow amin yaay soppe ndaw yi dundal weeral yow amin Cheikh Ibrahima dundal weeral yow amin yaay sunu xalifa dundal weeral yow amin yaay sunu xalifa dundal weeral yow amin waaw waaw yaay sunu xalifa dundal weeral yow amin waaw waaw yaay sunu dundal weeral yow amin waaw waaw yaay sunu xalifa dundal weeral yow amin yaay sunu

asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi fii ci toolu liggéeyu Cheikh Ibrahima Al Khalifa Cheikh Ibrahima Ba Ngodiba moom lañ doon liggéeyal ni macha allah gis ngeen mbooloo mi ni mu toll ni macha allah nit ñaa ngi ci liggéey ba fu mu toll nii ñaari tool yëpp daal dina noppi ci heure bii nii ñuy wax ak yéen macha allah yéen a ngi gis Mawlaay Al Khalifa mu ngi noonu ci biir tool bi ànd ceeg mbokki taalibe yi. diko ñaanal yalla lool fan wu gudd ak wër yalla yagal ko fi lool macha allah moom lii rek moy mbiram liggey ak jaamu yalla ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won ni liggeyal sa aduna ba mel ni da ngay dund ba faw na nga jaamu yalla tam ba melni suba ngay genn aduna wala tay ngay genn aduna mu boole ñaar yépp ànd ci nag jaamu yàlla yi liggéey bi yëpp macha allah toolam bi daal moo nekk nii gis ngeen mbooloo ni mu tollu fii ci goxu Ndoukoumane mënuñoo wax dëkk bu nit bàyyeekoo wut fu ne nit bàyyi ko na fa ñëw macha allah ñu ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm tawfiq tey taysir yàggal fi sëriñ bi bi jaay nabil karim barke alquraan karim barke baay radiyallahu anhu su ko su ko defee ñax gu fi desoon ñax mag mu ca feeg mag mu ca feeg bu di ko xaasal nuyoo sëriñ bi mu ne mi ngi xaasal nuyoo daayira daayira murid bu sanc moo soxna mm-hmm. seen ak seen mbooloo yëpp ñu ngi fi yal na yàlla fay leen indi seen alal ak ñi fi indi seen alal yëpp. ñu joxe it liñ toggee añ bi ñu joxe it liñ toggee añ bi. ku mel ni Kéba Gueye ca Gambie. ku mel ni Kéba Gueye ca Gambie. Bilal ci Kaffrine. Bilal Cissé fii ci Kaffrine. ak Ali Diouf. ak Ali Diouf. ndox yeeg. ndox yeeg yeneen yëpp. yeneen yëpp ñoo ko fi indi Babacar Ndaw. Babacar Ndaw mu El Ali Ndaw. mu ne Babacar Ndaw mu El Hadj Ali Ndaw. ñëpp daal ñu ngi gërëm ñëpp. continuer bu ñu continuer lim bi day gudd. sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp. sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp. gërëm imam Babacar mi. mi ngi gërëm imam Babacar mi ba. Mam alaji Mustafa, Ba. Mam alaji Mustafa Ba. alaji Masba, Mass Ba laa bëgg a Ba. Cheikh Mustafa Ba. Cheikh Mustafa Ba. ci sen taxaway. ci sen taxaway. Ñom ñep ñu bortu nak. Ñom ñep ñu bortu nak. ci ron sen bay. ci ron sen bay. Suñu porte parole Suñu porte parole. El Hadj Ba El Hadj Ba. Ma ngi doora tek sama tank ci. mi ngi doora tek tankam ci tol bi. kenn ko xamne ne maa la amul. te kenn koo xam ne moo la woo amul. Lepp ñom la. Lepp ñom la. te ñoo ko fi jitu. te ñoo ko fi jitu. it. ngi leen di gërëm. mu ngi leen di gërëm. di sakku ci yeen. di sakku ci yeen. ngeen ñaanal leen Yalla. ngeen ñaanal leen yàlla. muy sàkku ci ñoom it. muy sàkku ci ñoom itam. ñu ñaanal leen yàlla. allahumma salli ala sinam. bay pël mi moo joxe woon ñu jikki bay pël mi. bii maam maam Amin Ngam gerte. pël mi moo joxe. alhamdulillah. alhamdulillah.